salaatu lasi fi kulli shay'in wa fi safar hamani alamani malabsa wa safar ba bis bi juróom-benneel bi numéro nu ciy ànd ak Serigne Fallou Galass la. day wax ne ci bayit bi labista لبثت زياب المجد والفضل والهدى وفيك من الاخلاق ما احجس الكل شيخ محمود بامبا خادم الرسول نمو واخ لان بيت بوبو بيت بوبو مي سون بيتو تاي لبثت زياب المجد نانا يالا ليغا بيند مبلاني تيد غي ييب مونغو كو مبور امول بن مبلانوم تيرانغا مبلانوم تيد غا مبلان مو رافات مي مي لو نيت ورا سول ولا لو نكو ورا تارالي لو خامني def nga ko fi barab te nekkut ci moom la bis te mboolem xeeti mbubbi taraanga yi mbalaani taraanga yi def nañ ko ci yow wa fii ko nekk na ci yow Moustapha mii nga xam ne yàlla yàlla bind minal axlaaxi ci ni la yàlla bindee maa axjisal kulla lottal na lépp lu mu bindati jëratul ngay bind yow yàlla bi nga bindee Moustapha ba noppi jëratul ngay bind yonent bi da ci yëg boppam bëgg yàlla mi ko bind yëg ci boppam bëgg yàlla da koy da ciy bég yonti bég ci ndax ku kéré dara ne waaye lii ma kéré nu ngeen ko gisee sëriñ Tuubaa ko xaaral ma wax la ne ko gisee bala koo kenn a gis andil ko benn bayit boobu labista ziyabal majdi wal fadli wal xula wa fii ka min axlaaqi ma ahjasal kulla sëñ bi baytub sëriñ bi day day bu dalee day mat sëkk du manki du ëpp du manki du ëpp te bu dikkee day mel ne foofu ñu ko dóol moo taxoon ñu tànn ko moo tax may wax ne bayiti sëriñ bi jërul baril benn bayit boo jël man nga cee def ab livre mën nga cee def ab livre ci déggin kooku ak ni ko sëñ tubaa indee bi ko yàlla bindee yonent ba noppi tegal ko sëñ tubaa na ko nag taggal ma li ma bind wala kañal bind mu mu bayit boobu yàlla bég ci nag ni mu ko kaña ndax ëppalut kañ wa waaye mankilu ko yàlla koy wax moom wax ja du gudd ca bopp nappee daa war a dal moo tax ëppalut kañ wa waaye mankilu ko ci baytub labista ziyabal majdi wal fadli wal huda wa fiika min al axlaaqi ma ahjasal kulla ba mu noppee rek mënoon naa xat mu xasida ga teewut mu def ko fukki bunt ak ñaar bunt bu ne mu def ci fukki bayt ak ñaar mu di eh, muxadamatul amda Sëriñ Tuubaa li mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam benn jaam yàlla mosulaa wàcce ci kaw suuf nga liggéey liggéey bu toll noonu ndax pas-pasu bi yene liggey bi pas-pasu bi yene liggey bi mo mo moo rëy xeetu taggiin wi nga xamne mom la koy tagg nga xamne ku ne xamne seigne touba cieur bi mu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam cër féetewu ko kaw mu ne kon bayitu bis bi ñu leen jox digub daje incha allah ëllëg ak jàmm fi safar حماني على ماني